leen di dalal di kontaan ci seen ñëw bi di dellu tamit di leen wax ni Ousmane mu ngi leen di sant ci le 20 bi passé le 20 décembre ni ngeen mobiliser woon ñëw ci kaw ñëw ba mu am lu mu waxtaanoon ak yéen foofu loolu tey moo waral daje bi daje bi nag li ko li ko waral bari na li ci njëkk mooy que ni financement yi nga xam ni moom la leen di jox financement yooyu njëkke njëkkewu ko ci yéen ca dégg ngeen léegi soxna Xadi wax na ko euh, madame la maire wax na ko ñoom ku ci ne lan la joxoon xeeboo ko yà liggéey nga ci di ci liggéey ba tey jii boo ci leblee di nga ci leble 300 ba 400 mille kon lii mu leen di jox nee na ni mu leen koy joxe mooy que ne du xaalis boo xam ni ci ci ci ci euh, gouvernement la ko jëlee moom mooy dem di ko liggéey bu ko liggéeyee ñëw yéene leen ko jox leen ko te li mu te li mu leen koy joxe du loo xam ni am na intérêt bu mu leen ciy tegal wala mu naan leen bu ngeen ci liggéey ba pare da ma koy delloo yé bu leen ko joxee rek yéen a ko moom yeneen xool nu ngeen ciy liggéey jàppalante ci ba mu ba mu ba mu li ci des mooy que ni groupement yi bari na nanu ca enveloppe bi nga xam ne moom la xoon la génne dañ koy respecté weer wu ne ñu woo ñu woo lu mu tolloog 5 ba 6 groupement jox leen seen financement danu doon wax sax dañuy tourné ci ñoom di dem mais dajale leen ñu ñëw mu moo ñuy gën a yomb boo jugee fee dem waxtaan ak ñoom jox leen jugee fële jox loolu moo tax ñu dajale leen fii ñëw leen di leen wax ni am na ñoo xam dañ koo yëg ñëw mais la mu leen waxoon rek keroog ca ca ba bi mu leen invité yendu fii mun leen financement yi bu koy joxe ñi mu koy jox day day topp ordre bi ordre bi moom du ko burle da koy topp tey comme ñii nga xam ne ñoom la ñu génn ñoom ñoom la njëkkoon a wax ni leen ñoom cinq ñooñu moom bu demee incha allah ci mois de janvier bi seen financement dinañ ci jot ca keroog dégg ngeen ko bu ñu koy wax ñu ngi ko doon wax man waxoon leen ni leen loolu man bi ma jëlee kàddu leeralal naa leen ko nee naa leen ñun financement yi bari na luñ ci luñ ci joxe sax moom du ko fi fekk ñun ñi ñoo daan ànd ay naboog ñun ñoo daan ànd di ko joxe suñu paree daan daal koy rendre compte kon financement yi bu kenn yaakaar ne bu Ousmane ñëwee fii rek la nga ciy jot bu fi ñëwul dinañu ko envoyé ñu woo leen ku ci ne lañ la war a jox ñu jox la ko bi ci des mooy que ni Diop wax na ko euh, financement du ndaw ci xëy na ñun koy ni ni ni koy déggee mooy ndaw mais ci boo ko liggéeyee boo liggéeyee tuuti teg ko ci wa fa nga ko war a teg langa nga cee bëgg di nga ko ci am. ndax loolu yéen defe naa jigéen ñi kenn du leen ko jàngal xam ngeen ni ngeen di ni di tourner xaalis bi ci des mooy que ni euh, président war na fee ñëw le 6. le 6 boobu tamit dafa bëgg yéen Ousmane képp koo xam ni euh, euh, ànd nga ak Ousmane muy groupement yeeg yéen ñëpp. ñun le 6 boobu bëgg nañu bu ñu génnee fu président jaaree fe bu ñëwee ñu xam ni fii kat président Ousmane moo fi nekk ak ay nitam mouvement awa loolu moom na ngeen ci bàyyi xel bu teel a génn ñu toog dajaloo sunu dajaloo boo xam ni ku fa ñu romb di nga xam ni ñun lii ñu ne gëm nañ ko loolu moom dama leen ci gën a ñaax jóob wax na leen ko mais na ngeen ci gën a ñaax mu daal di ñëw le bi le bi passé yéen ñëpp gis ngeen li xew le bi président Ousmane bi mu koy jàpp jàpp na ko avant le 20 décembre waxtaan na ci euh, groupe euh, mouvement awa presque ay vingt cinq jours le 20 di soog a ñëw ñuy soog a def affaire bi bi muy génn di lancé di ni moom day def investiture président Macky Sall boobu defe naa kenn ñemewul a génn ni di nga koy def moom boobu ku ko génn def ko ñu tas ko nit ñemewu ko moom mu ni da koy def lu tax mu di ko def mooy que ni moom nee na fii mu ne xam na ni dëkk bi fii mu toll président kase mooy li gën ñu ñu ànd ak moom joxaat ko réew mi moo gën ñu di ko jox ñeneen ñu di ko ñu ko ñu di ko yaa bi ñu ko bi mu waxee loolu mu ni leen ñi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi jàppale président Macky Sall dinaa leen invité ñu ñëw wan ni leen ni lii ñuy def ñun ñëpp ko bokk képp koo xam ne yaa ngi jàppale président Macky Sall ci lii ci nga bokk mu ni moom investir moom mu ni woom du woote sargal wootewul diine wootewul Gara wootewul lenn investiture président Macky Sall lay wooteel kenn ku ko ñeme wooteel ku ko ñemewul it moom loolu ci la ci lay woote. kon ngeen xam ni Ousmane moom li mu ne ci lancé bi mu ne moom mu ngi ci social mu ngi ci politique li naan social du dem bàyyi politique mais moom ci ñaar yëpp la ne Ousmane bu socialee nga yaakaar ni social rek la mën bu politiquee nga yaakaar ni politique rek la mën. comme loolu bu leen yàlla dimbalee ngeen am ku mel noonu te li muy wax ak yéen amul lu mu ciy nëbb man démb woo na ma ni ma kat groupement yi. seen président yi ñëpp woo naa leen téléphone dafa naa li ne fii ñi fi ne ñëpp ku ci ne war nga ma ko mën a seedeel man ko ah ma waa woo naa leen nuyu leen ndax loolu moo gën a rafet ndax kon ko le vin bi dafa pare rek ma jël avion dem mënuma woon a dem ci ñoom il faut kon ma woo leen nuyu leen wax laan waxtaan ak ñoom ci loolu man ko effectivement loolu baax man bi ma xëyee sax la ñu ci bari di ma woon ni ma président Ousmane woo na ma kon nga xam ni kon moom yëg googu yëg mi ngi ci moom ñun ñi dañuy ne fii sax di fàtte mais moom fee mu ne li muy li muy li mu li mu ñuy fàttali moo ëpp ñun li ñun ñi nekk fii di ko fàttali ci loolu kon daal ngeen xam ni ñi nga xam ni ñëw nañu toog fii sa seen liste si ne ku ci Ousmane woo démb rek xamal ni financement yi di ñëw da nga ci bokk te bu soobee yàlla ñi ni ñi ñi ñuy joxe yii noonu lañ koy joxee woowaat leen fii ngeen ñëw ku ñu financé la loolu daal moom na ngeen ci xam ni loolu euh, bu ngeen di dem ni ngeen ko yóbbu. di leen sant ci seen teewaay bi ngeen xamante ne ñëw ngeen wuyu si ko ci turu mouvement awa bi nga xamante ni président Ousmane moo ko jiite. Ousmane Diop nag mooy góor sa wax sa na ma ko waxee woon lu mu wax jëfe ko ci kàttanu yàlla yàlla def na bis bi yegsi na nañ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim eggali ko alhamdulilahi rabbil alamin mouvement Awa nag defe naa ñëpp xam nañ ko alliance wallu askan bi président Ousmane Diop jiite ko duñ ko wax kenn ndax kenn ku ne xamee ngeen Ousmane Diop ci nu muy doxee picc ngi ci kaw nag waaye xel maa ngi ci suuf lu mu sori sori sori sori xelam a ngi ci yéen te li mu waxante woon ak yéen tamit mu ngi koy jëfee ba tax tey mu wóoloo mbooloo mi ngir fas yéene jëflante ak yéen jëflante bi nag weesuwul lu dul ci li mu doon dox démb ak bërka démb di ko doxaat tey président Ousmane Diop dina dox ci jàkk yi dina dox ci daayira yi groupement des femmes yokk dépense yooyu yëpp defe naa sama naataango yi toog ñoom ñëpp dinañ ko gën a dëggal waa ndax benn yoon mosul ci diggaat léegi nit te defu ko ba nga xamante ne tey jii wóor na leen yéen jigéen ñi ngir fas yéene jàppale leen ci li mu waxoon nag yéen financement yi nag yëpp a ngi fi yëpp a ngi fi toog dinañ leen ko gën a yegg yeggalil si kanam tuuti président Ousmane Diop la mu waxoon bële paase mu ngi koy gën a dëggalaat tey nee na dama dama denc vingt mille euro yoo xamante ne nii dama ko fas yéene jàppale jigéen ñi ndaw ñi xale ñi ñëpp kenn du des ndax rek suqali sama gox bañ ñëpp toog di xoole noonu. loolu moo ko tax a jóg. barkeb maam Cheikh Ibra sama sëriñ man soxna Khady Lo maa leen di nuyu yéen ñëpp yéen jigéen ñi Mouma Awa yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu président Ousmane Diop ak góor ñi mu àndal ñëpp ak jigéen ñi mu àndal ñëpp muy mag muy ndaw maa ngi lay nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi man waaw maa ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyoo bi te di leen xamal leen tey ku ma gis xam ne man damaa kontaan ndax man ànduma ak leader bi waxantu financement yi ba mu ko waxee damay nitu marché chaque jour dañ may laaj man leen li Ousmane de dipp ma ànd ak moom ba nëgëni waatal naa leen ci yàlla lu ma sa wax da koy def ki ma ko mujjee laaj barki démb bi bis ko wa ma wax ma ko dama koy la ma leen waxoon da koy def subaa jàmm la woote financement yi këram te lii du premier financement ci Ousmane Diop ci man bokk ñoom ñëpp Kawsara Fall Madina Fall Sonor gépp Ousmane Diop kuy leget xaalisam dugg na fa kuy jàkka dugal na ci loxoom kër kilifa diine yëpp tout kenn mënta waat xaalisam lan tudde woon sama jëmm ja mbay ceeb mooy Ousmane Diop mi lu mu war ci Sonor mi ngi koy def Ousmane Diop wàccoo naa ñun di ñun ñi ñoo ci des ñun ñoo war a jël jukkoy gor monte ko ci sunum xel teg ko ci sunuy bët fu Ousmane Diop joxoon ñu dem fa man de 200000 la ma joxoon sama leget loo yéen waatal naa leen ko ci jëmmi Serigne Touba bu ñu yàlla mayee ñu fekkee tal bu ñu tëbaskee ba pare dinaa woote feetal ko maa ngi ci fukki million ñaar Ousmane Diop ma ko financé woon financement day jëm kanam waaye du dellu man li ma xam nan takkuwaat te liggéey lu mu ñu jox ñu jëpp teg ci suñu fulla teg ci suñu jom teg ci suñu ngor suñu borom dañ koy fulal ba dañuy toog ñun bu Ousmane wootee ñu dugal ci suñu loxo man lay bis bii bettuma woon barke Serigne Fallou loolu ma sa wax man leen lu mu leen wax dina ko def tey jii ba essagoon man mi maay am problème te xam naa ne du ma sa essag ci àddina ndax nit mu àndee ak man lu mu diggee dina ko def lu mu wax dina ko def te ku am ngor la ku am fulla la te ku mu àndal bàyyi na la xel teg na la ay bëtam kon nañ leen am jom am ngor ndaje mu nu bokk rikk waaye bu ñu ca gis li nu dënmal nañ ci ànd ak kin ko jar a àndal lim ñu defal kenn defaluñ ko fi nag soo noor ba mu daj ca Mamadou Dieng laa ko gëj a gis ci Madina Fall gi ba tey jii nag Ousmane di ko def ko noon àndandoo am fulla am fayda takku ba dëgër jàppale Ousmane Diop fa mu bëgg a jëm mu jëm fa jëmalu fa boppam mii ñun ñii la fa jëmal ndax lu mu am ñun la koy jox wasalaam maa ngi nuyu ñëpp